ngir dab seen li ci yéen i kay. li ci yéen i kay Abdoulaye Bopp lañ si àndal lay ziar. jërëjëf euh, Seydina Omar Ba maa ngi lay fay. Wal Fajir lañ koy tàmbalee. Euh, ñu ngi i euh, kayu Wal Fajiri dikkat na ci wàllu Alpha Condé diggante mag njiit réew mi Macky Sall diggante bi xaw a xajam ci jamono ji Sénégal ak Guinée la ko waral mooy tëjum frontière yi Walf Quotidien ne moom Alpha Condé kaddu yi mu jot a ca Jeune Afrique fësal na ne ubbite frontière yooyu lee du tey du ëllëg euh, Walf Quotidien moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk am nañu liberté euh, Laurent Gbagbo euh, bële guddee foofee ca CPI Cour pénale internationale toppeetu leen dara ñoom am nañu afiya tribune tribune mu ngi ñuy dégtal njiit réew mi Macky Sall ndajeb conseil des ministres sàkku nañu gën a gëstuwaat secteur des médias càkkuti fam sax jéem ci waat wàllu réforme yeesal yu bees ngir gën a ñongal code de la presse bi bëgg na yi entreprise publique jamono waaye nag euh, loi gi nga xamante mooy jëm ci wàllu publicité ñu mun koo xoolaat. Vox Populi euh, Vox Populi activiste bi di Ousmane Tounkara la xëy dalal euh, dikkaat na xamal askan wi ne lañ koy tuumal ci wàllum terrorisme laale wu ca loolee bokk ci ay mbiram mu ngi ci Vox Populi. critique critique mu ngi ñuy tegtal Ousmane Sonko mi ñu ne daanaka sànq nañ ko ci wàllu politique gàkkal nañu deram la xew ca DSK loolee nag moo xew ci mbirum Ousmane Sonko critique ne Adji Sarr moomee retiré ngi ci yéen a kaabi di euh, critique ñu wax ci les échos les échos Seydina Omar Ba loi ñeel euh, wàllub dàqum élection locale yi ak yokkat mandat élus locaux yi loi googee daanaka euh, jàll na ca na mu gën a gaawee ca commission bako ko war a saytu fanweeri député ñoo fa nekkoon ak loi googee na mu amee njëriñ kujéeg politique bi ñoom kenn déggu leen ca ñu bari sax dañoo faf du moyu ndaje ma Amnesty International fas yéene clamé ci yoon nguurug Sénégal ndax fukki doomi aadama ñaar yi fi jot a ñàkk bakkan niki fitna yi weesu ci uh, Ndakaaru li quotidien lu aju ci wàccaayu koor gi tax na sénéra mu ngi artu di dànkafu waraatekat yi nañu def ndànk bañ indi xaaj ak seen ci askan wi rawatina uh, bod rawatina féewale uh, askan wi ci wàllu tariqa yi loole nañ ci bàyyi xel imam Kanté ne diine du lu ñuy foye du lu ñuy caaxaane loo cay wax xam ko noonu la ko li quotidien fësale direct news ne ana ko soppi wala boog analu lu mu soppi doxalin moom procureur bawo woon Alioune Ndao mi dal ci njiitu mi Macky Sall ba ci magistrature bu Sénégal yéen ak cabinet moom Alioune Ndao moomu de moo tuumaaloon euh, Karim Wade alal gu lewul ak moomet ndax moo jiitoon CREI yi ma tëjoon kaso rap euh, Karim Wade le mandat le mandat Barthélémy Diaz am euh, lu ko jaaxal ci dàqum élection locale yi ak njiitu réew Macky Sall ak doxalinam ci yooyu la woote Barthélémy Diaz àdduna ci l'évidence càcc ga amoon foofee ca Touba yéen ak cabinet Baye maa ñu ne am nañu duggoon këram ba yóbbu fa lu toll ci fukki million ak ñett googu le dossier nañ ca wala boog tuumal nañ ca ab policier mu ngi ci l'évidence libération libération ma nga ca Gajaga fa la teenub euh, pétrole ak gaz ba tàkke woon euh, fan yële ñu weesu Forteza entreprise gafade euh, lottal lool askan wa fay yeewoo ay satu sow ne ñoo ngi cay dund lu metti bokk na ci sax juma jane ca Gajaga boo deful ndak mun nañ fa tuxal juma ja ndax fa juma jane Eh, teenub gaz lañu ñu njortu ne moo ne eh, nga jagaak la fa ne ci gaz eh, te askan wa ba léegi feebar faju jafe leen. le quotidien le quotidien Seydina Amar Ba daaxum maanaam lu waju ci dossier gu ñu jagleel Gambie ak Sénégal ñaari réew yi ak lifi fi jot a xew fa ñuy weesu xajamal ci lu bëri ambassadeur bu Sénégal ca Banjul Basirou Sène ne Sénégal ak Gambie kenn mënut a dem bàyyi moromam daanaka dañuy wéy di jëflanteeg bi dem euh, demalante las las mu ngi ñuy dégtal euh, centrale électrique euh, bu bees goo xamante ne ay doomu Sénégal secteur privé bi bëgg nañ cee béy seen waar ngir mun ko taxawal 24 heures taxaw ca Touba xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi ñu ne mu ngi dox tànk jàmm ci réew mi rawatina sax la ko yitteel fexe ba jàmm ne ñooy ci réew mi loole sax sàkku na ko ci ku jëkk politique beeg nguur gi le soleil le soleil ndaje conseil des ministres gawoon jëm ci conseil présidentielle mu ñeel napp gi dañ ko amal ci weeru mai gi ñu jéem réew mi musiba mbaba kumbaam ca Kër Massar faatu ko soxna si di ndey soxna ma ñu ne dañ ko si ba noppi laata ñu koy euh, faat ba ñu dugal ko ci ab foos mu ngi ci réew mi euh, quotidien stade ndax mun nañoo yaakaar ci Aliou Cissé mu gañeloo Sénégal Coupe d'Afrique des Nations euh, yi ñu jëm laaj la ko samp ci stade suñu lamb suñu lamb la di jege ñaale Eumeu Sène wax na komba gi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Landiang gis ne Eumeu Sène du ci yox yoxi benn yoon lu combat bi laaj Eumeu Sène dina ko matal saay bu arbitre euh, arbitre sifflé bu ñu sukkandikoo ci Landiang tënk la woon ci xëtu yéenekaay yi Seydina Omar Ba daañu ci dellusiwaat kon incha allah rabbi ci xibaaru euh, digg bëccëg yi kon mbokki ci foofu la ci la ñuy yëkkatee jotaayu yi ñu ngi sant gërëm bu baax a baax euh, Adama Ndiaye mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba delluwaat kaddu gi soxna bisu Thiam daaw su ko defee mu wéeg yéen li des ci seen émission bi di dusal